yaa ngi am jàmm. ñu sant bu baax. tey ngeen ñëw ci open press ki nga xamante ne mooy Fils de Balla ñu gis géejewaay gi booloo gi ngeen booloo tey ban conseil nga koy yabee ci bis bi nga xamante ne jëm na ko ci diggante ma général Malika. waaw xanaa di di di sandaat bu baax a baax waa géejewaay ci taxawu bi parce que ñoo bokk ndey ñoo bokk baay képp ku ci xelal rek sa morom bu disponible war na ñëw teewal bu baax a baax la. waaw général maanaam général Fils de Balla li a combat bi lépp lu mu laaj xam na ko parce que waxtaan nañ ci ak moom te doful yamuñu général am ko doole daa ko bëre am ko fit di ko ñaanal yàlla may ko ndam ci kaw général jëlum seen wecc. général daa jàpp ne bu arbitre ne prime Fils de Balla arbitre moo leen fi bàyyi bu arbitre ne prime dina ko agressé jàpp ko daan ko ñu ci bëri yaakaar nañu ci analyse xeex bi mooy for euh, ki nga xamante mooy Fils de Balla. bon loolu waxu mbër la mbër taxaw na ak mbër li nga arbitre def bàyyi arbitre mais général bu Fils de Balla demee bay am lu muy xalaat ci général non war na xoolaat boppam bu baax parce que amul leen lu ko général ëpp du bëre du doole du fit du xeex du dara te entraîné lu mu war a entraîné yëpp. yow foo ne. waaw ñu ngi waaj di di préparer di préparer le 4 di si woo waa Guédiawaye yëpp ñu ñëw teewal seen rakk seen xarit Thiat Daouda Fall si digganteem ak Kaw di ñaan yàlla may ma ndam si kawam. xam nga ki nga jël Kaw Gourdin. xam naa woon nii rek. bari nee façon bëre bi muy bëre amul lenn loo ci mën a jaaxal. chaque jour noo ko ñun xeetu nit bu nekk am na école de lutte soit da ngay tolloo kooku catégorie moom lépp wala wala ki nekk école de lutte Balla Gaye ëppale la lépp amul lenn lu may xalaat ci moom wala ma koy bàyyi xel ci moom. Uh-huh. li nga wax rek nag mais incha si bis ba moo ko daaneel ñun lañ koy laaj. Uh-huh. Ah. incha allah. li nga moom. du mu lay rek ñu def ko. <laughs> waaw ñooy seen bu baax a baax. ma fekk la open press fils de Balla mu am bis bu rëy diggante ma général Malika nan ngeen ko waajee ak lu ngeen koy yëpp ci bis ba. waaw fils de Balla sunu sunu sunu frère la ñu bokk écurie jàngandoo bëre dafa noonu lépp tey mu am bis bu mag open press bi tey ñëpp ñëw na géej waay gi yëpp a ngi fii xam nga nit moom lii rek lii rek lañ di ko ñaanal yàlla ma ko ndam lu ndam lu sedd buy ndam lu rëy si kaw général Malika dimanche. si barke Seydina Mohamed. mën na yomb mën na yomb mën na yomb mën na métti làmb moom rek xam nga mën nga ñëw mu yomb mën nga ñëw mu métti xam nga mais naam ndam rek ndam li rek moo solo. ñi bari nee nañ combat bi. combat wu tay nga dee la bu Fils de Balla est-ce que loolu da koy dëggal. combat tay nga dee wu la général waaw loolu laay dëggal Fils de ni mu toll nii moom amul ku mu war a si si si si ki si bëre amul ku mu war a si dara amul lu ko mën a bële dëggal boppam jàpp daan ko loolu rek lañ koy sant amul leneen. nuyu naa la. ay sama doom yaay. waaw la gars yi moo garaaw. Oh. la ci gars moo doy waar barki ah, yàlla. maa ngi encaissé. Oh. maa ngi encaissé waaw mais lépp nga am jàmm. waaw ñu sant bu baax a baax. ngeen waajal Fils de Balla bis ko waajee ak lu koy yeb. waaw xam ko doon waajalee ak ni ñu waajalee suñu bopp dañu ko waajalee ñaanal ko yàlla am na gëm am na sañ-sañu ne day daan Malika parce que loolu ngay gis si moom loolu ngay gis si kanamam loolu moo am solo ci combattant bi quoi dañ ñaan yàlla suñu borom jour boobu mu ànd ak moom suñu borom dafa ko ndam lu sedd gu ci barke Ibra waaw léeg ñu bàyyi ci loxoy yàlla incha ngeen ngémb benn combattant boo xam ne ñu ci bari dañ naan am na combat tay mu dee est yow tay mu dee boobu bu fekkoon yow yaa nekk ci place am lan nga koy yab ak nan la fas yéenee bëre waaw dèjà fu la ko fayda fu la ko fayda tay mu dee taxul nga dee yàlla suñu borom moo yor ndam général Malika moomul ndam Fils de Balla moomul ndam ku ñax ñu ma da ngay waxilu pour yàlla may la ndam loolu da ñëw jël ko kay yàlla suñu moo yor ndam da ngay ñëw carrément moom jaam la may jaam day sabablu may sabablu mën naa am ndam sa ko mën naa am ndam teg jom fula fit fayda ñu ngi ñaan yàlla suñu may ko ndam ci barke Cheikh Ibra Fall boo ko doon conseillé ci xeex wala bëre lan la war a mën a bëre ba génn ne ko bu mbàyyi dara lépp mën a nekk xeex xeex ba bëre bi mën a nekk barke Serigne Bamba xeex ba bëre bi yëpp mën a nekk lépp lépp sax xeex bëre lépp dafa am jaajëf mbër. waaw lii moom est-ce que wóor na. waaw mais c'est le géejewaay moo yëngu. Ah. sang bi moo yëngatu quoi. gars yi sang bee yëngatu waaw. mbër. Marley. maa lay ziar. maa lay ziar bu baax. ngeen mu jëm ci xare bis bu mag. diggante ma général Malika. nan ngeen ko yebee amee ko ndam. doomu géejewaay la te doomu géejewaay du ragal. Uh-huh. ñu ci bari nee nañ combat bi combat tay ma dee la ci moom est-ce que loolu da nga koy dëgg. non mënul nekk tay dee si moom parce ndaanaan la comprendre nga donte ndaanaan lay bëreel mais ndaanaan la ñu daal li ñuy ñaan mooy suñu borom may ñu ndam amul leneen lu ñuy ñaan lu dul ndam rek. adversaire bi dafa mel ni daf ko daf ko xeeb boo gisee ci ni muy wax ak moom du Fils de Balla mooy ki ko war a téye tey boo ko ngémmoon muy bëre ji dernier conseil bi nga koy jox lan la war a mën a bëre général moo mel noonu xam nga bu taxawee moom comprendre nga analyse moo dul te kenn ku nekk ak fu muy gisee tamit tey xam nga adversaire bu dee dafa taxaw waxee nee nit bu mu xeeb adversaire am parce que ñoom ñaar làmb la bu nekkul woon làmb du leen tëgg comprendre nga ñun daal li ñu ñaan mooy yàlla may ñu ndam te incha allah rabi rafet nañu njort ne suñu borom dinañu may ndam. jaajëfati di ko ñaanal ndam rek waaw maanaam. <laughs> ndamu la ndamu sedd guy. xeex wala bëri. si bëre xeex lu mu ñëwee rek. ñoo koy ñaanal ndam waaw. du wax na nañu yaakaar moom parce que entraîneur lu ko war te lii tamit du mbapat. combat bi combat wu tay ma ci moom wala du combat tay ma dee. waaw moom moo gën xam loolu noonu. xam nañ kom bi tay ma dee muy bëri daa bëri wax. Mhm. waaw du ay wax daanul kii. Mhm. kon dafa war a liggéey war a jaayante. Mhm. ci jàmbaar la sax du ma wax mu jaayante parce que day jaayante. di ko ñaanal ndam neex naa bëreel. waaw naa bëreel nag lu loolu après ñaar la quoi. waaw neex na bëreel. waaw ñu ngi koy ñaanal ndam daan ndam lu sedd guy di wax général ku neex a ku neex a daan la. te war na daan si facilement billaahi ku neex a daan la Eh. ci xeex wala ci bëre. ci bëre ak lépp. war na ko mën daan ci ay secondes. waaw ni ko nag lii du mbabat ay buuxante du ay jaante doole. xel mu sell liir go liir combat bi bëre bëre bi daan daan bi waaw. ñu gis de géejawaay actuellement fi mu toll nii ci làmb. ñoom ñëpp dañoo mànkoo doon benn moo tax keroog bi ñu ñëwee arène nationale confirmé na ko quatre combats lañ fa am quatre victoire euh, ngeen di yabaat général Malika da ngeen di jëli li ngeen moom wala da ngeen di continuer rek kom ni nekkee. waaw géej waaye moom ku ko xam ne xam ne moom lamb làmb dëgg dëgg gënal géej waaye ñun géej waaye nii tout pare lu ñu am kenn amu ko benn bër amu ko kon kon kenn waruñu ñëpp jom kenn waruñu gën a taxaw si physiquement kenn waruñu gën doon jàmbaar. te moom bu xool war doon jàmbaar comprendre nga waaw dañ koy yab nag mu ñëw fair play xam nga indi jàmm indi salaam indi général ma lu metti daan ko si ay secondes te lu ma koy conseil ko daan si ay secondes. yow eh. foo nekk man maa ngi si jàmm maa ngi toog jàmm suma roq di préparé. man ak Naar di ñaan yàlla yàlla may man dam si kaw naasuwaat la 14 bi laay bëri incha bi ka daa mel dañ ko ñu ci bëri xam nañ ne ndaanaan la ci wàllu bëre malgré moo la jiitu ci làmb moo la mag ci làmb cër boobu da ko koy sédd wala da ngay jël li nga moom. waaw ñun nu daan bëree dañuy bëree rek nu daan préparé si ne nii encore la 14 ñoo ñaan yàlla suturaal ñu ma ñu ndam arbitre bu suulee dinañ tox si kawam dinañ ko dóor si dinañ daan incha allah. waaw bu bu mais man lu ma daan indi laay nit mu si waaye dara damay ñëw indi xeex indi bëre indi daan si kàttanu yàlla. ñu ci dañ naan Jackson ni mu lewetee nii ak géew Jackson bi ñuy gis day doon benn lan moo leen utale. waaw ñun ay taalibe nan rek nii la ñu yoree ñun taalibe Serigne Mouhamadou Moustapha nan xam nga ñu nekk ak nit ñi bu ñu ñëwee miral làmb dañuy changé tamit yére boobu suñu beneen yére solaat beneen yére boo xam ne yére jàmbaar la ñun lu lewet lewet suñu morom góor duñ def dangay waayal daal di indil naa sa wàllu métti ñun luy préparé préparé wu ñu wax pour noor sax waat da ngay pare pour si kanam di ñaan yàlla yàlla may ndam dina bëgg ñëpp